ndax présidentielle yàgg na ma fekk Touba mais présidentielle boo xamante ni sénégal yi amee na ni détermination amee ni yëg-yëgu voté loolu mosuma ko gis kon nag damay ñaan yàlla nii mu tàmbalee nii ci bismillahi rahmaani rahim mu jeexale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ba bu am droit def sa droit citoyenneté nga def ko ci jàmm xam nga ñun suñu ñoo wote lu dul jàmm ndax fa politique it fañ juddoo permettre ñuy wote leneen lu dul ay kon jàpp naa ne jàmm moom sëñ Touba bi nekkoon ndax xam ne lu ko gën dane ma lu ko gisul lu ko gën fii gisul lu ko gën fañ jëm yow la kaa sa boobu amul jàmm du baax ci yow kon jàmm képp ku koy woote yow yaa ngi woote li gën. violence moom bokkul fenn météo wala gën a bonati te ku ko fi defit conséquence yëpp ci sa kaw lay këpp Sénégal daal nii vote yi commencé démarré nii ndax ñun xam nañ Touba dëkk bu mag la lépp mënut a tàmbale rek jaar yoon ndax 610 bureau defat loolu kenn mënu ko expliquer dina am bureau yoo xamante ne bu ñu tàmbale léeg-léeg président bu du ñëw léeg-léeg mandataire yi du ñëw loolu comprendre nañ mais li wóor bu wóor ñu demee ba midi lépp war naa jaar te it loolu la ñuy remarqué woon pour